Sadio Mané wax démb comme quoi que dañu war a revoirat le système dañ ko war a décortiquer dëgg la benn Sadio Mané du toog ci télé bi di wax ne dañu war a changer coach bi wala de Aliou Cissé il est pas compétent ou mënatul mais dafa am anam bum koy waxee kan mooy l'artisan du système système de jeu bi ñuy teg kan mooy l'artisan mais c'est le coach kon bu jour bu mel ni Sadio Mané ak expérience bi mu am yëpp taxawee nekk que dañu war a xoolaat système bi mooy que dañu war a xoolaat kiy teg système bi. te nit ki changement systémique la bëgg. te nit ki aussi <laughs> parfois boo yéegee ba ci sommet bi wàcc rek nga mën a def. il faut savoir sortir par la grande porte. Hmm. dama jàpp ne Aliou bi mu jëlee Coupe d'Afrique mu échoué ci mondial bi. dafa waroon a rendre le tablier ñu xool beneen coach xool nan la ñuy demaatee mais di entêté wu ci équipe ci ci bopp équipe bi ne ne ne ne dafay continuer di ko di ko coacher ak série d'humiliation yi mu dëtmal dañuy gën a vivre piir na génn na bàyyi parce que bàyyi jot na signe yëpp ñu ngi ñu ngi étali wu que ne moom li mu doon def lay répété waat te comme ni ko mu waxee on avait une équipe boo xamante ne nii pratiquement ku ko mënoon coacher waxuma di nga jël coupe d'Afrique mais dinga sori ci bépp compétition boo dem parce que sunu ay joueurs ñu ngi doon évoluer ci club yu gën a mag ci àdduna bi ba pare di fa def ay jaloore boo fi limee doo bàyyi benn benn ci effectif bi onze yëpp ngay wax maintenant démb nga am benn Sadio Mané boo xam ne nii dafa blessé amuñu benn meneur boo xam ne dafa ñuy yéegalal bal bi ci kaw d'accord mën nañu wax ne yaa y'a un manque d'efficacité peut-être benn temps bu ñu noté ci euh, sunu attaquant mais parce que système de jeu bi Aliou Cissé teg vraiment proli prolifique figul de trop amul benn apport boo xam ne nii am na ko lu war a mën ne ñun sunu adversaire démb ñoo ko mën donc comme ni ko Sadio Mané waxee war waxuma sax revoir le système mais dañu war a changer coach parce que vraiment atteindre na ay limitam te ku atteindre sa ay limites il faut que ñu remplacer la xool keneen ku mën a indi ay pexe yu bees. d'accord Cheikh noo jàngate match bi démb. <laughs> match bi nag li ma ci seetaan bëriwul quoi démb parce que pour man dama yaakaaroon ne dañuy lem. match bi dem waaw parce que. <laughs>